le ministre euh, final euh, coupe du maire nek léegi ben rendez-vous bu mag euh, fi ci Linguère tay lan ngay yek ci édition bi nga xam ne yow lañ ko parrainé en 2019. wa dañ ci am mbégte rek parce que depuis suñu élection à la tête de la mairie depuis 2014 chaque année rek bu ñew dak bi ci bi weesu muy mbégte lol parce que tay fête jeunesse bi la depuis démb le tambali

lan mooy chantier lan mooy mébét fii ci Linguère buñ ko mënee waxee noonu. waaw fii moom wax dëgg yàlla góorgóorlu nañu quelques changements yo xamné yi bëgg nañ ko entamer notamment fi ci stade bi bëgg nañu yokk tribune bi ba bari bëgg def en face benen tribune moy suñu yéene et puis pourquoi pas plus tard mettre du gazon parce que tamit amna solo parce que fi fii dafay tàng dafa sori bëgg nañ aussi infrastructure yi baax pour gën a nit ñi ñu fi mëna sport am nañ fii à côté benn terrain de mini foot gazonné Euh, pour xale yi di fi mën a entraîner ak mag ñi a am également d'autres infrastructures fii ci biir Linguère. monsieur xanaa ñu laaj sa pronostic ci final bi balaa ñuy euh, bàyyi euh, événement bi continuer. waaw man nag dama yaakaar ne sama waa koñ ñoo war a gagné waa dëkkandoo laa yaakaar ne ñoo war a gagné ñoom laa am naa yaakaar naa ko ñooy tey dëkkandoo waaw. bon match rendez-vous remise trophée bi. tey Linguère moo xewle.

qui est projet aux familles productives pour jàppale leen ci xeex ndóol yàlla dogal tey ñëw nag tombé waale ak finalu monsieur le maire sunu collègue ministre de l' intérieur l' excellent ministre monsieur Aly Ngouille Ndiaye ñu fekk si ko tey ci bés bi nga xam na tey waa commune Linguère ñoo koy sargal lii dafa wane wax naa ko sànq sama discours nee naa tey bu nee lutte contre la

du développement social socio-économique de notre pays ñu am ci yu bare ay programme yu bare bari programme bi si njëkk mooy programme pour sécurité familiale tey nañu ñoom lancé benn programme ba dafay complet waatee dafay complété mu sécurité familiale tey nag ñoom nag ci ko nag bouclé ko parce final bu toute la population de Linguère ni ngi ñëw sargal monsieur le maire ànd fi fekke ko ñu tam ànd ak moom sargal ko kon tey vraiment bésu màgg la ci population wu Jolof yëpp